nan la dundee ak jàngoroy drépanocytose ñaareelu nibal bi jàngoroy jàngoro jàngoroy deret la su lu gën a leer mooy jàmbaar yi yóbbu oxygène bi ci biir deret te ñu ñàkk kàttan nit ñi amee jàngoro yi jàngoroy drépanocytose danoo am hémoglobine bu wutee ak bu normal bi seen bos mi ngi tudd hémoglobine S jàngoro joo xam ne dañu koy donn dañu koy wàllante si waajur ak doom dinañ ko am góor ak jigéen bu dee cosaanu gu hémoglobine es bi dafa jóge ci sa benn waajur nit ki amee jàngoro drépanocytose jàngoroom motul dafa manqué nit ñi amee jàngoro drépanocytose li ci ëpp du ñu yëg dara dañuy mel ni ñu wër wante bu ñu amee doom mën nañu ko wàllu seen doom bu cosaanu hémoglobine es bi jóge ci sa ñaari waajur nit kooku am na jàngoro drépanocytose bu mët dina gis firndeel yi dina ko wàllu doomam. jàmbaar yi yóbbu ci suñu deret oxygène bi danoo am ay hémoglobine yu mel ni cercle boole ci nooy ndax ñu mën di yëngatu te duñu am jafe-jafe ci suñu biir sidit yu mag yi ak yu tuuti bu ñuy yóbbu sunu deret ci suñu yaram bu dee jàmbaar yooyu dañoo am hémoglobine bu wute ak bu baax bi loolu di tax oxygène bi nekk ci sunu dereet dafa tuuti dina tax jàmbaar yooyu duñu noyyi dañuy dëgër mel ni weer bu matul wala gopp yooyu jàmbaar duñu lemu dañuy yëngu ak jafe-jafe mën nañoo fàtt fi sa deretu yaram di jaar loolu dina indi ay métit ak ay yàqu-yàqu ci sa ay cër yokku ci mën na noo dagg say sidit nit ñi amee jàngoro drépanocytose mën nañoo am ay metit ak ay jafe yu tar topp jéego yi mën na laa dimbali nga wàññi ni muy feeñee ak wàññi ay jafe-jafe yu tar. am taxawaay bu mucc ayib ci sa wérgu yaram mën na laa wàññil ay metit di yëngal sa yaram saa su ne mën naa tax ngay sonn si lu yomb loolu war naa tax ngay xool ni ngay yëngoo di moytu lu lay sonal. del lekk lekk yu baax ci xol di wàññi di naan sàngara wante di naan ndox mu bari. bàyyi di tux cigarette di moytu jaar-jaar yi indi ay metit lu mel ni tàngoor bu bari walla sedd bu tar wala coppeeku bu gaaw bu température mën na koo indi booy dem pour fay di sangu ci géej wala si piscine del dugg ndànk si ndox mi moo gën nga tëb rekk dugg si bul di tukki si avion boo xam ne tëjuñu ko ba mu ne kepp di jàng nan lañuy wàññee metit yi bu métitu tar yi commencé naanal ndox mu bëri boole ci naan garabu métit maanaam analgésique bu dee mënoo téye métit bi ci sa kër dawal nga dem kër docteur ndax ñu jox la ay garab yu am doole ak ay garab yu nuy jàllee ci sa sidit yi bu dee dangaa am li tudd priapisme maanaam di ko dal bu yàgg di métti mën naa am nga wàññi ay métit boo yëngal sa yaram boo demee tamit sawi naan ndox mu bëri ak ay garab yu la sa docteur digal wutal ndimbal bu dee dangaa ànd ak njaaxare ak jaaxle wut ku la dimbali si xalaat mën naa am solo maanaam psychologue na nga wut ndimbal docteur si nu mu gën a gaawee boo gisee lii bu dee dafa mel ni sa deret dafa néew di indi ngay gaaw a sonn di ñàkk ngelaw booy nooyi booy miir wala sa xol di tëb bu gaaw wala boo toogee mel ni dañoo ba sa dënn bi mel ni dangaa ñàkk deret métit yooyu mën na noo tax sa bakkan nekk si xottu gerte yaram bu tàng ndax dangay waaj a feebar bu dee yaa ngi yëg ay metit yu tar ci sa dënn bu ànd ak di sa kët sa yaram tàng nga mel ni dangay ñàkk ngelaw nooyi ngay yëg lu mel ni kuy waaj a tàggaliko ak sagoom wala di waaj a ñàkk doole wala ngay mel ni sa benn booru yaram bi dafa dee wala nga mel ni mënatoo wax xool wala dox priapisme maanaam ko dal bu yàgg di metti bu dee defa ëpp ñeenti waxtu dawal dem hôpital jàngoro jàngoroy drépanocytose jàngoro boo xam ne dafa chronique la mooy di nga ko am sa ngiiru dund di dem si kër docteur di caytu sa yaram saa su nekk am na solo torop sa docteur mën na laa digal ay garab wala ñu defal la beneen deret pour wàññi jafe-jafe ak métit yi yokku ci di ñàkk saa su ne. jigéen ñi ëmb te amee jàngoroy drépanocytose ñoo ëpp ay risque am ay jafe-jafe bu dee da ëmb wala nga bëgg a ëmb seeti sa docteur waxtaan si ak moom